tey justice sénégalaise dafa ne euh, Ousmane Sonko dañ koy dugalaat ci fichier électoral bi d'abord dañuy rend dañuy rendre hommage au peuple sénégalais parce que quand bu justice waxee peuple bi moo wax parce que dañu naan ci nasaraan la justice est rendue au nom du peuple ñu ngi euh, tamit gërëm. ki nga xamante ni liggéeyam rek la def donte waruñu koo gërëm sax waaye ku def lu rafet da nga koy wax ku def lu baax da nga koy wax muy euh, juge Ousmane Racine Thion tey dugg na ci taarixu réew mi ci euh, histoire bi bokk na ci juge yi nga xamante ni dañu affirmer seen indépendance lii yëpp dafa rafet pour man amul kenn ku gagné pour man peuple sénégalais moo gagné Ousmane ko droit am rek lañ ko joxaat parce que liñ ko jëlee jaaduwul woon juge bi rétablir ko ne ko léegi da ngay bokk ci élection yi donc comme je di kenn pertul ñun ñëpp gagné parce que ñoom aussi xeex nañ parce que loolu la parti au procès toujours noonu la ku ci nekk da ngay xeex yàlla ñun la jox dëgg bi parce que li yàlla dogal mooy Ousmane Sonko dafa waroon bokk te Ousmane Sonko incha allah dina bokk pour man loolu moo am solo maintenant li ñuy woote rek mooy Sénégal dafa toll ci euh, euh, taarixam ci euh, point boo xam ne dañu war a waxtaan dañu war a juboo nekk benn euh, Ousmane Sonko li ko dal métti na parce que yàgg na sonn yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko xeex yàgg nañ ko def loo xamante ni dafa métti mais ku ne xam ne Ousmane Sonko du nit koo xam ne day fayu donc euh, du nit koo xam ne dafa soxor li ma yàgg wax rek pense que président Macky Sall bu xamoon Ousmane Sonko du xeex ak moom parce que Ousmane Sonko kenn gënu ko du koo xam ne day fayu du koo xam ne day euh, day day day day day jàpp nit di ko di ko di ko di ko sonal du koo xam ne day jàpp day day day day jël nit ne doo bokk naa la jaay doole yooyu du du Ousmane Sonko donc li am solo mooy tey peuple sénégalais moo gay moo moo triomphé peuple sénégalais moo am dam donc ñu ngi gërëm peuple bi tey li ñu doon ñaan yëpp yàlla nangu na ko tey mooy que Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi incha allah. beneen beneen affaire bi beneen affaire bi mooy état bi am na droit def pourvoi. mais ñun dañ koy lancer un appel ne ko pour mu jarul jarul pourvoi parce que euh, du sax mënuñu ko mënuñu ko sax parce que jeex na mbir mi moom naka naka jekk jeex na parce que li cour suprême waxoon loolu la juge bi rectifié donc point de cassation bi fàtt nañ ko ba pare donc jeex na amuñu benn chance pour man nañu dem ci kanam ñu ngi ñu joxe loxo ñu avancé après ñu organiser ay élections yoo xam ne fête lay doon parce que sénégalais loolu lañ xam.